mbokk yi ñu fas yéene dellu seeg yéen ci tontu laaj yi fi jotorot ci kàttanul yàlla saa borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek mooy aji xam ji laaj bi jiitu mbokk mi laaj na daa bokk cib daayira waaye sas yee ñu teg dafa xaw a diis ci moom mooy laaj ndax mën naa bàyyi waaw daayira moom xam nga daayira du lu lislaam teg kenn daayira nit ay bëgg lu baax ñu bëgg a organiser dara ñu dajaloo incha allah di dimbalante xay na dayra nag bokk na jëkk a ca gën a siiw mooy Serigne Cheikh Gaynde Fatma Cheikh Ahmadou Mbacke euh, tawub sëñ Modou Moustapha bu fekkee ne du moo ko njëkk a tëralit bokk na ci ñi ca gën a siiw def naa bindoon na ci am bind tëral dayra ni mu war a demee ak yu caaju yal na yàlla dolli ko ay yërmande dolli koy leer waaye wax nañ ne. daa waxoon bokkoon na ca lam waxoon mooy dee leen laaj nit ñi lu ñu am te di ko dugal fu ñu xam kon nag day mel ne daayira boo xam ne yaa ngi teg eh, ay eh, addiya yoo xam ne nit ñi mënuñu ko wala am nañu ko mënut subaa kon yaa ngi wàcc yoon wax wala kulli xaal lislaam mi nga xam ne mooy eh, santaane sax bi muy santaane azaka ka ko la wax kon daal daayira moom buñ bëggee mu dem nañuy wattandiku di sant nit ñi loo xam ne dafa diis ndax nit ñi am na ci ñoo xam ne wala dafa dëgg lu ñu jëfandikoo ñoom seen bopp wala lu ñu jox seenu njaboot amaguñ ko boo bëggee wëlbatiku di leen teg lu nag ba di leen bëgg a xutba nag naan liggéey sëñ Tuubaa ak nangam déedéet loola demewut noona sëñ Abdou Khadir am lu mu waxoon ci addiya dane boo liggéeyee ba weer dee la nga am dang cay jox sax njaboot boo ci joxee sax njaboot ba mat sëkk bu fekkee des na incha allahu rabbi nga jël ci lu sedd sa xol dem yët yët sëriñ ba addee kenn du ko tënk ne nii lay toll wala nangam moo tax bëgguñu ñuy tobbi aw sas naan nangam xanaa bu fekkee nit ki moo ko teg boppam waaye aw sas muñ ko ndax li ngay sas nit te nit ki la mu war a am am amam demul noonu wala àggu ca te bu ko joxoon mu daal di rus amaana koo xam ne la tax mu joxe ko mooy gis na diw ak diw joxe nañ su boobaa kon du ci am yàlla ndax kon ngistal moo tax kon daal daayira war nay wattandiku di teg ay sas yoo xam ne nit ñi duñ ko mën nañ xool lu oyof loo xam ne xam nañ lii ñëpp danañ ko mën waaye buñ xool rek ëpp pësteef wala mu ëpp fi wërsëg ñu jël sasi yi di ko natt ca moom waxalaa kulli xaal moom mi bu fekkee daayira ba daayira bu jaar yoon amal na ko njariñ ma nga fay jànge ma nga fay yeewoo ndax bari na daayira yoo xam ne wax dëgg amuñu benn njariñ nag lim daayira loo tàngal kafe wax seen wax nangam programme bi lii la dem seen yoon loolu moom taxul ñu naan daayira daayira daara daayira daa war a nekk barab boo xam ne daara lay doon maanaam jigéen ñi bu ñu fa demee danañ yokk seen diine nga xam ne daal ku bokk ci daayira boo toogee juróom benn weer wala at buñ la laajoon ne la ah waaye yow bi ndax yokk nga ci wàllu diine nga ne waaw wax dëgg man de lu bari xaw ma ko ne samay farata xam naa ko ci ca daayira ba jànge naa fa xam-xam ubbil ñu buntu yoo xam ne ku bëgg laaj sa diine incha allah ñu tontu la xam ñu ngi bàyyi loolu xaraam daayira loolu lay jariñ waaye bokk ci rek rëmbax loo sol ay mbubb nuroo àgg toog naan kafe tabarkalla dëppaat loolu nag amul benn njariñ di dajale ay sas rek loolu nag bariwut njariñ kon daayel eh, bala ngaa joxe addiya da ngay xool sa kër defar ko ndax loola faratala lii nag dañ koo sopp rek mooy dajale kii jox ñee tayit nag na fekk nag na daayira ba la ñuy dajale ñu ngi ko jëmee foo xam ne dana amal njariñ nit ñi dana amal njariñ diine ci léeg-léeg ñu dajale loo xam ne wax dëgg ba ñu wëlbati fañ koy dugal daanaka du am solo ndax bu fekkee ne daayira bi am na ñu fi nekk ñu wax ne ay way ñàkk lañu ñu dajale alal ju bari uh, walbatiku man naam dem jox ko ak kilifa tabarkàlla ah te kilifa googa moom xëy na wërsëgam am na nu mu demee ba noppi mën naa taxawuñ ci lu bari man na ko ah su boobaa day loola dimbalante ba mën naa des kon daayira bi war naa am social war naa bari uh, buñ dajalee xaalis ba mu bari incha allah rabbi léeg-léeg nag ñu gestu waa daayira bi sëriñ Mourtala lii may wax ci moom laa ko jànge dafa dem benn benn ci dëkk yi nekk bitim réew radiyallahu anhu moom sëñ Touba ñu dajale addiye jox ko mu noppi daane ana ñi nga xam ne dañoo tumuranke ñu won ko ay moodu moodu yu bari ñii amuñ ay këyit ñii dañoo bëgg dugal ay këyit amuñu xaalis ñii dañoo bëgg ñibbi amuñu bi ñi nangam mu tasaare war ko foofu ci ñooña loolu mooy kilifa dëgg-dëgg mooy nag da ngay bàyyi xel nit ñi waaye nag di dajale ay alal rek ne buñ dajaloo ba mu bari ñu ne yéen nañ ko kilifa diw nangam ah te fekk daayira bi ñu ngi ñàkk ñenn ñi amuñ ay dépense ñenn ñi nangam daayira bi jànguñ seen diine loolu nag suubaa kon day mel ne leneen la. bu fekkee nag kilifa gookee kat daa am jàkka ju muy tabax wala daaree alxuraan wala lu wér loo xam ne lu ñu mën a xam la nga ne buñ ko ci dugalee dañuy wëlbatiku jëlaat seen doom yóbbuwaat fa ñuy jàng alxuraan su boobaa kon liggéeyal yàlla la nag bu kenn sas kenn dara kon daal moom mi bu ko neexee mën naa bañ a bàyyi bu dee daayira bi amal na ko njariñ incha allah euh, waaye nag na wax ne lii mënuma ko mu leer nañ naññ bu fekkee am na lu man mu ne nangam daal mën naa ko yëkkati loola joxe waaye daayira moom du ngir dajale xaalis ngir defar nit ñi la waaye bu ñu jëlee yi nag def ko wàllu laaj xaalis rek lu ñu laaj ko wax dëgg yàlla war ngaa teg fii nangam war ngaa teg fii suñu nangam bi ziar bi war nga cee teg nangam suñu cant gi ñu def war nga teg nangam bu yàggee nag dañuy miiras nit ñi nit ñi dañuy découragé wallahu taala a'lamu sawaaba bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj mu ne moom ab safoor la muy laaj kañ la wàññi julli di ko war ah, awalan wàññi julli du war kenn wàññi julli dañ koy sunnaal ci nit ndax boo tuddee baatu bu war mooy loo xam ne mënu ko ñàkk def bu ñu lii dalaa war mooy loo xam ne boo ko defut am ca bàkkaar te wàññi julli agul foofu kon sunna la mooy wàññi julli amut man safoor laa man menuisier man sëriñu daara laa man jàngalkat laa amut euh, amut ay xaaj day def dañ naan rek képp kuy tukki rek képp kuy tukki rek bu fekkee chauffeur ba day tukki tukki mooy jóge ci benn barab jóge ci barab ba nga dëkk wala barab ba nga logé war a jëm ca beneen barab te doo fa yàgg benn fan nga fay def gën gaa bari bu dee chauffeur moom xam naa benn fan ñaar wala ñaar wala ñett nga xam ne doo fa am lu man ñeenti fan te dangay def direct da ngay jóge fii def direct doo jóge feen taxaw tak fenn lu yàgg doog a dem feneen fekk distance yooyu du wàññi kon daal ci misaal bu fekkee chauffeur bi ci missal dafa nekk Touba heure bu yebee war a jëm Ziguinchor wala war a jëm dakaar te su àggee lam fay def day faj soxlaam rek gaaw a dëppaat wutaat client dëppaat incha allah kooka musaafir la aji tukki la kon nag deesul laaj man chauffeur la man menuisier la moom daal képp koo xam ne ab jullit la buy tukki rek may nañ ko mu wàññi julli bu sartee dajee mooy jóg mi ngi jóge fii mu dëkk war a jëm ci benn barab te dafay faj soxla rek dëppaat du am lu dul benn fan wala ñaar wala gën gaa bari ñett incha allahu rabbi war a dëppaat tey distance bi man na lu bon bon quatre vingt kilomètres wala quatre vingt cinq incha allah am na ñu ne soixante douze ah, su boobaa kon mboolem julli gu ko fekk ca tukki bi sañ na ko sañ na ko wàññi nekk gi nekk safoor du ci dara wallahu taala alamu sawaaba bismillah mbokk mi ab laajam ci gàttal ah, muy laaj nu ñu yéenee rek loolu moo gën a gàtt yéene ñu bari dañ koy def problème te yéene du problème yéene du dara lu dut li nekk sa xol nga bëgg koo def loola rek mooy yéene kon bu lu ci sonn di wax nii laay wax damay dox na déedéet yéene du lu ñuy wax dañ koo sib sax wa yuk Sëñ Tuubaa neen wa yukrahu nutqu biha illa ida xad kaana saa waswasatin fa yuxtasa ca taswadu subaan neen dañuy sib nga taxa du julli naan fas yéene naa julli tisbaar ngir yàlla ngir lee loolu dañ koo sib yéene mooy intention maanaam bi nga bëggee def nangam ba nga xam ne nga xam ne lii mi ngi soxal loolu nga bëgg loolu mooy yéene ja kon boo taxee war a julli tisbaar nga xam ne li nekk sa xol mooy fas yéene julli tisbaar neel allahu akbar jeex na loolu rek mooy yéene ja kon nag damay wax lii dama ndax dama naa ngir yàlla ci ca la bokk loolu lépp da la jël moom daal na nga yéenee julli tisbaar jeex na ngir yàlla ngir yàlla ji boo ko waxut te yàllaa tax ngay def loolu amu ci njariñ <laughs> loolu maanaam li ci am solo mooy yow xam nga ne ngir yàlla tax nga di ko def jeex na boo ko waxee boo loolu amu ci njariñ kon ñu bari dañuy sonn ci yéene coono boobu seytaane da koy def ci nit léeg ngay sikk saak est nii lii laa war a wax waroo wax dara def ko sa xol bu dee koo xam ne xelam dafa naqari nga ne bu ko tuddut loola andil koy jafe-jafe ñu ne kon kooka may nañ ko mu ne fa mu daal di wax ci làmmiñam bu taxawee muy waaj a kaba ne fas yéenee julli ngir yàlla jeex na ba tey jërut ngay ràññeele damay joox ak damay fay bu fekkee ne loola mënoo ko moom daal neel fas yéene naa julli tisbaar bu dee gee fas yéene naa julli gee ci sa xol nag laa wax mooy na nekk sa xol maanaam bi nga taxawee li nga bëgg a julli ci sa xol mooy gee neel allahu akbar jeex na incha allah euh, kon nag maa ngi koy fas yéenee joox ak maa koy fas yéenee fay moo xam julli gi dafa teew wala julli gi dalaa faat ba nga koy fay neel fas yéenee julli tisbaar ngir yàlla yem ca mu jeex bu fekke ne koo xam ne xelam mën naa teewlu mën naa lépp bu ko neexee buy julli bu dee day joox mën a fas yéenee joox tisbaar bu dee day fay mën a fas yéene fay tisbaar jàpp ko ci xolam waaye loola yëqu ci dara même boo ca juumoo nit euh, ngay julli di fay ba noppi na fas yéene joox wala ngay joox na fas yéene fay loola du ci yàq dara kon daal mbokk mii di laaj ñu ngi koy digal euh, ñu ngi koy laabiré bu julli bu teewloo ci xolom ne mi ngi julli tisbaar na wax allahu akbar rek mu jeex jërul mu cay sikk sàkk sikk sàkk gu bari loolu day yàq jaamu yàlla wallahu taala alamu bismillah mu dee laaju mbokk mi Euh, bu dee laaj bu njëkk bi mu ne koo xam ne dafa bàyyi lekkaam luy àtte bi àtte bi mooy dara waru ko bu dee moo ko tey nag incha allah def na lu ñaaw ndax ma ngay oyofal sunna waaye nag bu fekkee da koo fàtte rek ñëw taxaw daal di yéene rek daal di kàbbar loola du tax muy laat ngir dëppaat naan damay liqaame déedéet kon kooka day continuer rek te baax da salaam du ko war qabla salaam du ko war incha allah bu dee ñaareelu laaj bi. mu ne koo xam ne dafa am salasul bawl am njokkalem saw noonu ko téere fiqi di jàngale maanaam koo xam ne fu mu dool rek euh, day toqal di génn am saw nga xam ne lu mel ne tawat la ci moom waaw kooka day suba loola du yàqati ak jaamu yàllaam loola du yàq am njàppam bu doon julli mu génn tamit du yàq am du yàq julleem cheikh mohamadul bichar rahmatullahi alayhi nee wa kullu ma shaq fa anhu yufa wa diinu yusrun lutfa ka saw bi xasaabin wa saw bil murdia eh, aw wa balalil aw ma daaraha wa misluhu tiinu rosaasi wal matar mu ne aw xadasun mustankahun moo ma taxoon a jóg sax aw kal athar min dumalin ba mu jeex kon xadas mustankih mooy loo xam day toj njàpp waaye dafa taqook yow nga xam ne du tàqalikook yow loola moom dañ la koy jéggal kon kooku bu jàpp jotee na dem jàpp sopp nañ julli gu nekk mu jàppal ko ah, bu jàpp jore na dem jàpp booy jàpp muy génn na continuer buy julli muy génn na continuer loola yëqatut ak jaamu yàllaam wallahu taala alamu sawaab bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi ne daa gis ñoo xam ne bu ñuy julli buñ sujjootee ci misaal rakk bu njëkk nga xam ne foofu amul toogaay buñ sujjootee siggi sujjootaat nga xam ne dañoo waroon a ñokkit jug taxawaay dañ fay toog waa loola daa gis-gis la ci diine incha allah daa am ñoo xam ne noonu la ñu gisee su boobaa nag loola wér na moom la ñu tuddee julusul istiraaxa waaye yow tiiwal deel def na nga daa def rek mooy boo sujjoodee ñaareelu ñaareelu sujjood daal bu fekkee foofu waroo faataay nel ñokket bul toog doo ko jóg teewul nag ñoom gis-gis la ci diine bu dee ñaareelu laaj mun daa menn mbokk moo xam ne day faral di wax lu dul dëgg maanaam fen mu wax ko ko nag mu ne ko fen daa am ñaari xaaj daam fen wu mag ak wu ndaw bu dee yu ndaw yi moom garaawut waaw kookee de dëgër na fit lool te seytaane mi ngi koy jekku premièrement tuumaal na diine loolu mu wax dara amu ci fen wu ndaw amut fen wu garaawut tamit amut te fekk na nag fen wi nga jàpp ne garaawut moo gën a bon sax wa jàpp ne dafa garaaw ndax lan ndax wi nga jàpp ne garaawut da koy def continuer naan waa wii moom garaawut te fekk woowa incha allah moo lay jural tooxi doona li di wax naan da ngaa xal mu lakk sa dàgga xeeb xar mu sa dàgg kon premièrement fen wu ndaw amut loolu mu amut du wax ju wér ci diine ñaareel bi mi ngi waru ndax waru mooy jàpp ne lii may def di ba noppi jàpp ne gëraawut xam nga loola ñaar ñaar ñaar yu garaaw la xam nga ki nga xam ne mi ngi wax lu dul dëgg waaye moom xam na ne lii muy def du noona kooku yàlla mën na koo dimbali mu tuub ndax moo xam na ne mi ngi juum waaye li garaaw nag mooy réer ba noppi xamoo ne réer nga yàlla nañ ci yàlla musal mooy yaa ngi def lu xaraam ba noppi jàpp ne defoo lu xaraam su boobaa kon ñaari problème nga am mooy yeewoogoo yeewoogoo xam nga boo doon dem ci ab dëkk daal di réer yoon wi nga ah, man mi di réer naa loola baax na ndax loolu day tax nga tàmbalee solution tàmbale di woote téléphone tàmbale koo dajal laaj ko ana dëkk nangam waaye li bon nag mooy nga réer bu noppi jàpp ne réeruma suba da gën a dem rek ah, da ngay dem ba dem ci àll ay gaynde daje fa ay gaynde ay bukki kon mbokk moomu na ragal yàlla ci loolu muy wax loolu amut ci diine ku ko laajoon foo ko teg du la indil dara ndax la ma amut ñaareel bi mooy mi ngi dekk ci bàkkaar ba noppi oyofal bakkaar ba bàkkaar bu la mën a tàbbal ci sawara yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wattu leen bàkkaar yu yi nga xam ne mën na leen tàbbal ci sawara te bakkaar yu mag yi fen mi ci la bokk kon nit ki li gën a bon mooy di fen te li ngay fen amut benn njariñ maanaam eh, dalaa neex nii sa bakkan sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na saa ne ko diw mooma fen diw doomi diw ak diw yàlla na ko rëbb suñu borom rëbb ko ba noppi ne malaaka yi ñëpp rëbb ko maanaam génne ko ci yërmandeem ba ñu bindal ko juróom ñaar fukki bakkaar yoo xam ne benn bakkaar bu ci nekk toll na ne jabalu Uhud maanaam daal toll na ab dëkk toll na ne dëkk bu ndaw loole nag ku naan daa oyof ak naan daa am bu ndaw ak bu mag kooka seytaane mi ngi koy nax kon na góor góor ta bàyyi loolu doomu aadama du tàmm wax lu dul dëgg ndax day dem ba nit ñi xam la ci yonent bi sala gis nga xadis ba mu ne inna rajula la yaksib boobu mënoon ne mu ne nit ki day tàmm wax lu dul dëgg di ko oyofal di ko oyofal ba mu yàgg ñu bindal ko ca téeréeb ne kaddaab kii lu mu waxati rek du dëgg lu mu rek du dëgg kaddaab ba ci doomu aadama yi sax da ngay gis léeg nga wax dara ñu ne ko wax loolu ñu ne diw ñu ne ah kooku day yow day wax yaa ko naa ne kooku ay waxam jërëjëf jàpp kooku nga xam ne moom ci la dëkk moom lu mu wax daanaka du dëgg gis nga ko naka noonu nit ki dana dëggu ba mel noonu moom it buñ ne ku ko wax wala nangam ñu ne diw ñu a ah lu mu wax dëgg la de kooku day du caaxaan kon nit da ngay sa bopp Sëñ Tuubaa nee na awit lisaanaka xawlal xayri tuhfa bihi inna lisaana lima awata yaxtaadu fii kulli shay'in taata ma sananta lahu dégg nga Sëñ Euh, sa làmmiñ wi deel ci tàmm wax ju rafet wax ju jaadu waxi dëgg de ko tàmm ndax xanaa xamu ne làmmiñ loo ko tàmmal loolu lay tàmm loo ko tàmmal loo ko miinal rek loolu dong lay tam kon nag yi wax lu dëgg naan lii daa tuuti wax fe fen wu ndaw la gëraawut loola fam lay yóbbu incha allahu rabbi mooy loo waxati nit ñi jàpp ne waxi caaxaan la waaja kat da daan def demee ci àll ba euh, di sàmm ay xaram ba mu yàgg mu jekk-jekk yuuxu ñëw ci dëkk bi ne wooy gaynde gaynde waa dëkk bépp génn mu ne dama leen di nax def ko ñetti yoon ba mu yàgg ñeenteel ba nag gaynde dëgg di ko dàq nag muy yuux waa dëkk bi ne kan la ñu ne diw ñu ne ah kooko day day day kii rek kooko day daa bëri ay caaxaan nangam ndekete yoo gaynde la amuñ lu dul génn gis ay yaxam gaynde ki lekko lakk ko yóbbee mooy tàmm wax lu dul dëgg kon kooku na ragal yàlla ci li muy wax naan nangam kenn du wax ci diine wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kasib haza xalaalun wa haza xaram li taftaru ala llahi alkasib alquran neen wattandiku leen di jekki jekk naan lii dagan nag lii dëgganut tan li ngeen wax xamu leen ci dara naan lii fen wu ndaw la ku la laajoon fu ko alquran wax fu ko yoronte bi wax fu ko téere wax doo ci wax dara lu leer ba noppi naan dagan na wii garaaw na wii loolu ab jullit du ko def wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj asakay mbay asakay mbay nisaab bi lay laaj maanaam boo ci amee ñaata waram xam-xam yi nee boo ca amee lu tolloog juróom-benn barigo moo xam pepp la moo xam mboq la moo xam ñebbe la boo ci amee lu mat juróom-benn barigo daal incha allah topp jëm kaw asaka war na ca boo ko xaajee fukki xaaj benn xaaj ba nga jox ko way ñàkk ñi wallahu taala alamu sawaab bisimilah mu dee laaj bi ci tege xam naa lim fii ñëw moom bari na lool même mbokk mi ko dugal sax xam naa ne yàgg na ko dégg xëy na kon laaj yu mel nii buñ ko laajatee ñu jël vocal bañ ko tontoo woon rek jël ko jox ko kook moo gën a kaaw ndax jaar na fi ay yooni yooni yooni yoon ah, mooy dénkaane ak jur ne ko bu juree nga jël bu juree ma jël loolu wax nañ ci ay yoon wax nañ ne loola bu fekkee la nga ca jublu mooy ak fay la maanaam téel ma sama bay wi yaa koy xont yaa koy sàmm li ma lay fayee ci coono boobu nga ciy daj nag mooy bu amee doom su ma jëlee su su ma jëlee bu amaatee doom da ngay jël loola wax nañ ne ba sonn xaraam na daa wóorut sax ndax béy wi ci boppam xamoo ndax dana dundam déet waa ji mën naa sàmm jënd ay kiim ba bari ba béy wi ëmb béy wi jékki-jékki dee mook doom ji yëpp léegi ana xaalis ba mu ca moom est ko koy fay loolu xatar la naka noonu mën nga koo sàmm sax mu dem ba am doom borom jël ki nga xam ne moo ko yore moom lañ ko dénk muy sonn di xaar far yàlla dugal béy wa dee ci boppam. loola lislaam da koy tere li ngay fayee nit ki day nekk lu wóor am na boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne bu fekkee ne danga ne ko bu amee doom te doom ji juddu màgg te gënal la nga jël muy sag fay bu la gënalul nag ma fay la nangam ñu ne kon su boobaa dana dagan ndax loolu mu léegi leer na lu dul nag ne waa ji da koo yor ngir yàlla rek ah, bay wi man dama ci koñ bi laa dëkk wala man ci àll bi laa nekk andi ma boole kook sama béy rek di sàmm incha allah amul solo. su boobaa nag ne ko kon de xam naa bu juree su ma jëlee bu juraate mën ngaa jël nga xam ne day mel da koo may du ak fay su boobaa loola dana dagan wallahu taala aalamu sawaaba